Amadou Gaye maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di bu baax. voilà Amadou Gaye nga nekk euh, njiitu euh, fédération nationale des boulangers euh, du Sénégal lan moo waral boulanger yi ne dañuy yokk njëgu mburu mi exactement. waaw ñun néewuñu dañuy xëy yokk mburu mi dañ ni dañoo am ay jafe-jafe ñu bëggoon jafe-jafe yi mooy. Euh, levure bi mooy bi ñuy liggéey si mburu mi levure ak améliorant bi ak gasoil bi jan janvier ba léegi ñu yokk di yokk di dem teewul ñun waxuñu dara ñu muñ xam di askan bi nekkee waaye ñëpp gis nañ ni fan yi yëpp aussi courant bi ñëw jéggi dayoo maanaam la noon am yëpp bénéfice daanaka courant bi nga koy jox mooy jëm si woyofal bi ak lépp ah sëgam ñun dañ nekk lu ñuy wax ci régime d'homologation amuñu sañ sañ yokk maanaam am nañ sañ-sañu woote ni léegi ñëw leen dañoo bëgg conseil régionaux yi ngeen di am ñu woote ko pour waxtaan ak yéen yokk-yokk mi nan la demee ak lu ñu si war a saafara loolu dong la ñu demandé de ndaxte deux mille dix neuf ba ñuy fii sa njëgu mburu bi deux cent la waroon jar ñi si ay xaatim nañ ko bëgg téye ko ñu ni leen ñu ñaan ñu ñu wàññi suñu loxo ñu wàññi juróomi dërëm def cent soixante quinze ak deux cent grammes mais nag dañu digoon ni danañ fexe tout pour décret bi nga xam ne Macky Sall moo ko signé woon nañ ko respecté maanaam ay jaay mburu si boutique yi livraison yi autorisation boulangerie yi yooyu yëpp ñu ni kon danañ ko respecté waaye nag li ñu constaté mooy loolu yëpp amul xuraas mm-hmm. moo tax ñu def conférence de presse pour population bi jël ñu à témoin ni ñun de buñ seen ñu woote conseil régionaux yi ñu waxtaan si njëg li te da jàpp nañ ñun njëg li bu ko doon waxtaanee normalement juróom yi ñu ñu pettoon la ñuy yokk si yeneen juróom yi nga xam ne yokku yokku bi loolu dong la laaj maanaam léegi daal loolu la wax mais waxuñu leneen courant bi yokk na lépp yokk na ñun demandé ñu woote conseil régionaux yi waaye hmm. nag euh, lañ gis nag mooy dafa mën a yaa lu ñuy wax incompréhension maanaam dégg-dégg am mu am si mu déggee ni ñu naan dañuy daa am ñu droit yokk mais ñun waxuñu dañuy yokk de. Mm-hmm. dañu nekk seen homologation léegi nag léegi nag su dee nag léegi loo xam ne depuis 2006 ñu ngi si doon jëm homologation te mosuñoo ñun bind parce que ministre dafa bëgg ñun ñu bind pour prouver yokk-yokk boobu daal waaye ñun mënuñoo bind parce que mosu fi am dañu daan xool ni jafe-jafe am na ñu woo ñu réunion ñu waxtaan dem conseil lu mus am nag léegi dañuy jàpp ne dafa am beneen euh, réeróo maanaam dafa mel ni dañuy bëgg a kekk tekkantool maanaam dafa mel ni dañuy bëgg a tàddal loolu nag moo tax ñu ni kon ñun duñu bind saxam ñun duñu bind kon jàpp naa ne kon euh, waxtaan mënu mënut mënut fi amati saxam ñoom fu ñu toog buñ taxawee fi ñu taxaw ñu taxaw fi ñu taxaw ñun moom xalaatuñu bind parce que lu musta am duñ ko def su ñoom amuñu bët amuñu gis-gis amuñu dégg-dégg ba mën a gis li li am si léew mi yokk-yokk yu courant beeg yokk yëpp doom ñoom gisuñu ko il faut ñu indi prouver ko jarul prouver bien que yor nañ yëpp nag léegi nag kon te buñ ñu wooyee nag ñu ñëw suba buñ ñu wooyee nag ñu ñëw léegi nag sax ñoom loolu la ñu lay décidé moo tax ñu ni kon ah nañ jël suñu matuwaay léegi pour mën a xool naka la ñuy baaree euh, jafe-jafe yi naka la ñuy mën a xeexee ba am lañ bëgg moo tax yaakaar naa ne daal xeex boobu lañ jëm ñu toll nii daal mooy solution bi ñu toll parce que hmm. aussi dañu yore jaboot ñu di wax yow am na sa benn ne sama sœur moo ko moomoon investi na cinquante à quatre-vingts millions cinquante millions mat équipement ay trente millions si bâtiment bi mu ñëw liggéey na même pas un an ñàkk respecté réglementation bi tax na mu teg ci mu teg ci suul ba loolu mu ngi ko ne dañoo yore suñu jaboot dañu yore ay ay emploi yu ñun ay duñu ay hmm. déggul nag moom léegi ñun dañuy yore suñu fu ñu tëj tëj ko nag mu léegi ñu taxaw tuuti si si si courant bi nga xam ne moom ngeen di jàmbat facture yi courant bi moo yokk wala facture yi salé lañ indil boulangerie wala woyofal bi mooy poser problème lan la exactement ak. Euh, facture courant yi. Hmm. facture yi d'ailleurs bu ma njëkkee si woyofal logiquement. benn boulanger warul nekk si Woyofal mais tey boo na ubbi sa four boo demee Sénégal dañu naan la contrôle yooyu amul Woyofal moo am léegi Woyofal yun boulanger yi dañu nekk horaire maanaam da ngay am say TVA da ngay récupérer sa TVA mais léegi boo jëndee Woyofal foo jëlee fooy fayee fooy récupérer TVA boobu loolu la déjà problème la léegi nag ñu gis ni ku Woyofal ku daan jënd dix mille francs jënd vingt mille ñu nekk ay waxu courant waxu waxu mais ban chaleur ñun suñu four yi utiliser wuñu climatiseur utiliser wuñu utiliser wuñu ay ay ventilateur four lañu utiliser four la pétrin façonneuse diviseuse loolu machine la loolu du ko loolu loolu machine la loolu moo tax léegi beneen côté bi mooy ñu yore facture man mii di wax yow rek sama facture yëpp dafa yokk trois cent mille quatre cent mille après sept cent mille loolu mu ko ne parce yooyu moo yokk loolu moo tax ñu ne kon courant bi metti na lool moo tax ñu ni kon nañ toog ñaan gouvernement bi dañ ko ñaan ah dañu ñaan lañu wax dañu ñaan ni ko suñu jafe-jafe yi ñu nekk ne xel noonu si Diafra loolu la wax mais nag bu ñu bëggee xoqatal di ñu menacer yooyu moom amul problème. dañu hmm. jàpp si yàlla. à part euh, courant bi yan jafe-jafe la la boulanger yi di jànkonteel. waaw manaam li am solo mooy levure bi ak améliorant bi boo xoolee dafa yokk levure bi nga daan jëndee carton bi dix-huit yaa ngi ko jëndee ay trente mille améliorant bi kazalika nga ñëw aussi gasoil bi yokku na fi ñëpp xam nañu ko cent franc te loolu dañ koy soxla suñu oto yi essence bi suñu oto yi ak suñu fuur yëpp yokk yokk na fi ñun waxuñu dara de loolu yëpp jafe-jafe yooyu dañ fi nekkee mais li ëpp solo mooy euh, réglementation bi nga waroon respecté kenn respecté wu loolu moo am solo loolu bu ñu ko respecté woon xëy na duñ nekk si situation bi ñu nekk nii actuellement tey. Mm-hmm. voilà léegi mais gis nañ ni euh, daar daar euh, ministère du commerce dafa génne benn communiqué euh, daal di ne nag yokk mburu moom fi ñu toll nii kenn xalaatu ko sax loo xalaat ci communiqué boobu. am na sañ-sañ boobu. Mhm. ma répété encore ñun ñu neewoon dañuy yokk de. Mhm. dañ ko ñaan mu woote conseil régional mu indi ay experts am expert ñu toog waxtaan ndax mburu ñaata la war a lool loolu loolu lekk nañu moom xam na suñ jafe-jafe waaye moom na mu ko waxee moo ñu xaw a jaaxal mhm. mooy faaw faaw ñun ñu bind moo tax ma ne ko ñun duñu bind parce que loolu mos fi am donc lu mos am bi nga def ko kasara léegi nag ñoom mhm. am doole bi ñoo am maqaam bi ñu am lépp waaye ñun nag ay privilège ñoo moom suñuy fuur am nañ sañ-sañ tëj ko dafa lañ jëm nag ci sa tëj ko maanaam expliquer ñu xam grève grève lañu jëm de fu ñu jëm ñu fexe nu ñu organiser di grève mhm. chaque mois danañ grève ba am lañ bëgg ci nan ak ci naka boobu le dama ne mhm. dañu nekk di réunion nii waaw dafa bëri ñi di proposer grève yu metti ñi di proposer lii waaye dana ne man décidé décidé guñ dara mais tendance bi ma la wax laa wax dama ne mhm. ni ma déggee nit ñi ni ñu waxee ah, du waxtaan suñu groupe whatsapp ah, nit ñi lañ bëgg mooy su dee nangu ñoo recevoir nangu ñoo waxtaan ak ñun teg suñu fóot. d' accord mais nañ weer chaque hmm. weer nañ grève dañ ko def. c'est le fond novembre novembre bi janvier bi novembre décembre janvier février mars ba keroog ñu am nañu bëgg rek. d' accord euh, léegi aussi euh, ñu euh, consommateurs yi ñu bëri dañu nemmeeku ni poids wu mburu bi dafa wàññeeku euh, loolu si tontu Amadou Gueye. waaw loolu laa man man la est ce que ñun la ñun dañ nekk régime d'homologation état bi mooy fixé poids mooy fixé njëgu mburu nee na boulanger yi def leen poids deux cent grammes waaw lu ñu si mën ñun fan la mën a yem ñun ñii ñoo waxoon nañ def poids deux cent trente ñu bañ bu ñu defee deux cent trente grammes boobaa mburu mi dana gën a baax dana gën a baax. tey bu ñu defoon ni par exemple poids deux grammes nga jaayee ko deux na gën a baax léegi nag loolu moom kenn comprendre daal mais ñun du ñun de ñun dafa poids ñoom conseil région moo koy def. merci beaucoup Amadou Gaye ñu lay remercier bu baax ñuy fàttali yow yaa jiite fédération nationale des boulangers du Sénégal Amadou Gaye.